الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مبقي تاولو وحتاني waxtaan yi ñu ngi leen di leen jaajëfal di leen ndokkeel ci weeru koor bi di leen ndokkeel it fii àddina bi toll di leen ñaanal tawfiixul ilaahi jamono bi ñu toll ci àddina mbokk yi waxtu tuub la delluwaat ci borom bi subhaanahu wa taala xoolal àddina bi yépp ñépp a ñépp tiit wala nabluwannakum bi cheyin min alxawfi waljuu ونحس من الأموال والأنفس والثمرات وبصر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون يا ننتي على yàlla بقي جات ننتوب jot nañu بكاري bu nattu la lu mu mën a doon kon jar na jaadu na jot nañu tuub mbokk yi dellu ci borom bi subhanahu wa loolu moo tax ñu andil leen tuub danañ ko def ci ñaari pàcc tuub mooy dellu ci yàlla tuub mooy dellu moo istigfaar istigfaar moo koy préparé tuub nag moom bu ñëwee moom mooy li nga xamante ne dangay ngay rëccu ne dootoo ci dellu moom tuub dafay ñëw ngir feklal la musiba bu la waroon dal sa diggante sa boroom muy mbugal mbugal nga tuub dellu ci yàlla mu jéggal la kon dellu mooy tuub rëccu mooy tuub kon yàlla bu ñu bun ubbilee tuub loolu day wane siatu rahmatihi jalla wa ala yërmandeem ju yaatu lay wane mbokk yi tuub mbokk yi dafay ubbi buntu yaakaar tuub dafay ubbi buntu yaakaar tuub mbokk yi dafay ëlbati sax bàkkaar yi di ko mujj def lu baax moo tax suñu borom ne illa man amana wa amila saliha fa ulaika yubaddilu llah illa man taaba wa amana wa amila saliha fa ulaika yubaddilu llahu sayiatihim xasanat wa kana allahu gafuran rahima loolu da lay wan ne yàlla subhanahu wa taala day ëlbati ñaawteef yi def ko yiw bu tuub amee kon mbokk yi waxtu wii jot nañu tuub waxtu mbas mi waxtu koor bi kon nañu delluwaat ci borom bi subhanahu wa taala te ku ne ci ñun war nga santaat yàlla nga ne yàlla may na ma occasion xelaatuma woon ne dinaa fi dund ba ba ba déwén xelaatuma woon ne danaa ko fi fekk xelaatuma woon ne danaa ko tal waaye fekk nga ko tal nga ko kon yàlla may na la occasion kon yàlla kula la bëgg la mu ne laan dawal ñëw tuub sel delluwaat wat si man kon boo ko defee rek man yàlla maa ngi lay xaar tuub nag dafa am ay charte pour mu yàlla man la nangul bi ci jiitu mooy sellal sa yéene bi ci jiitu mooy nga sellal sa yéene al ikhlas mooy looy def rek def ko ngir yàlla ma tax suñu borom ne wa ma umiru illa li yabudu llaha muxlisin kon li ngay def da nga koy def te yàlla rek tax kon bu jëkk bi ci chartay tuub mooy nga sellal bu ñaareel bi ci charti tuub mooy an nadamu ala fi'lil masiya rëccu ci jëf ji nga defoon rëccu mooy njaxare gu tar mooy li nga defoon metti na la li nga defoon metti na la an nadamu lii day dootul amati rëccu naa ko an waaw te rëccu tomb bu essentiel la ci wàllu tuub mbokk yi moo taxoon yonente bi ne an nadamu tawbatun rëccu rek tuub la an nadamu mu ne tawbatun rëccu rek tuub la bu ñetteel bi ci charti tuub mooy jóge ci li nga newoon ci mooy yàlla dem ci topp yàlla ci nu mu gën a gaawe al iqlaau an il masiya fawra gaaw dellu ci yàlla nu mu gën a gaawe waaw te loolu nak budé ci digënté sa borom la nga bayiko ci si saasi bu dee diggante nit la nga dello ko ak xam noonu la ñuy tuube ci àq nit noonu la ñuy tuube ci àq nit da koy dello ak xam bu dee yax nga bàyyi loola ci saasi waaw motaxan taxoon bi ne man kanat lahu mazlamatun li aqihi min ardihi aw cheyin فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم mu ne ku amel nit dara ku dox sa digganteex sa mbokk dara gaawal nga delloo ko ak joojule ba bu laa yowmal ñëw nga xamante ne réccu dafay wees mbokk yi yonente bi doon na wax saxaaba yi atadruuna man il muflis ndax xam ngeen ku ñu saisir ñu ne ko waaw mooy ki amul ki nangam ki mu ne déedéet ki ñu saisir mooy ku ñëw yowmal qiyam te lépp mat na julli zakat yi saraxa yi lépp waaye nag àq yi delloo ko woon tooñoon nga kii jëloon nga alalu kii defoon nga lii ñu jël sa yu baax ya nga andi wale fay leen parce que noonu rek lañ leen mën a fay yàlla bu mu jeex nag su jeexee mu am ñoo ameel ak ñu jël seen sofaan di la ko jox mu ne kooku mooy al muflis yàlla nañ ci yàlla musal bu ñentel bi fi ñuy daanale mooy al azmu ala alla yauda ila tilka al masiya mustaqbala nga ne lii daal dootuma ci dellu waaw bàkkaar bi dootuma ci dellu kon charti tuub wax nañ la tuub mooy lan mooy dellu ci yàlla charti yi la limal nañ la charti pour ñu man la nangul waye gis nga jamono bo toge ne tuub na rek jaratul fune nga dem fa naan damay tuub ay bakar bima ma dedet yàlla jéggal na lako ta bu selle nak lépp lo ñaawalon nga rafetal yàlla jël lu bon lola nga defoon elbeuti ko def ko lu bax yubaddilu llahu sayiatihim hasanat hasanat mbokk yi يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تعنتوا من رحمة الله لا تحنتوا لا تحنتوا مبقي بل دكورازم مك لما دف دي خاوم فن لا كي واحد لما دف يلا دم كي جعل يلا بكر يب لا يجعل لما دول جعل رك ما ينعا ده يب بوالك تبون دم بفوفنك خم خم دم آدم دك إيجوف فن جم ndax danañ la mbugal ndax danañ la loolu domaine yàlla la te yàlla yërmandeem yaatu na bu kenn àtte ci palaasu yàlla kon occasion jot na mbokk yi ci weeru koor wi occasion jot na mbokk yi fii àddina bi toll gis nga wala nabluwannakum ja kon jar jot na ñu tuub delluwaat ci yàlla mbokk yi kon tuuba ngi noonu te yàlla yombal na ko waaye daf ko ubbi ngir wane ne jaam bi man yàlla soxla naa la man yàlla ku la sopp la man yàlla ku bëgg sa yërmande la ku la bëggal teraanga la ku la bëggal jàmm la fii ci àddina àllaaxira te incha allah ci dars bii ñëw danañ la ko wan kon yàlla na yàlla defal tawfiq ba boole ñu ci ñi nga xamante ne danañu tuub delluwaat ci yàlla te bu ñu tuubee yàlla na yàlla nangul réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm àddina bi yàlla na fi yàlla def jàmm li ñuy ragal yépp yàlla na ñu ko yàlla dàqal même mbas mi bu jàllee la neen luy ñëwaatit yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla aar bi jaahi rasul sallallahu waaye tawal yi ci kër yi hôpitaux yi ñu ngi leen di ñaanal yàlla leen yàlla defal jàmm waaye du ñu mën a fàtte suñu mbokk yi nekk bitim réew ñu ngi leen di ñaanal bu baax ci seen jàmbaar ci seen bëgg seen réew ci seen bëgg seen njaboot guddi bëccëg ñu ngi sonn bu seddee ñu ngi liggéey bu tàngee ñu ngi liggéey guddi li ñuy noppalu lu néew la kon ñooñu it yal na leen yàlla taxaw bu baax yal na leen yàlla defal sutura bu baax fu ñu mën a nekk ci àddina bi rek kon nag di leen dox daje ci waxtaan wi di ñëw incha allah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.